palaasub jigéen ñi ci média yi ci Afrique loole nag di thème bi ñu jagleel émission bi di RFI ñu duppeeku ko huit milliards de voisins ci bésub 8 mars bi loolee nag kan moo ci gën a mën a wax ku dul directrice générale bu télévision 7TV di MNF âge là surtout moomee nag di dikkaat ci jaar-jaaram bi nga xamante ni nii wane na ko lu jëm ci wàllum journalisme fi nga xamante ni nii nag daal dina fay góorgóorlu ba am tuur samp ndëndam. Euh, euh, maa ngi dooree ci desk culture. bi nga xam ne soxla yu bari nekkoon ci euh, rédaction bi foofu lañu ñu nekkoon moo tax ginnaaw gi combat personnel fa woon pour def ay chronique culturelle waaye dama ñëw ngir traiter actualité ay vraie problématique moo xam ñeel wàllu politique wala sax wàllu koom moo tax ci diirub ñetti weer rek ma dal di dëggal sama bopp. sukkandiku ci journaliste bi xam-xamam màcc ci wàllum politique ak économie moom mee nag mu ngi xamle ni discrimination warul am ci biir rédaction yi moom mee nag jàpp na ni jigéen ñi itamit dañoo war a def ay sujets yi nga xamante ne nii daanaka soxal na bu baax askan wi. problème bi mooy que ne soxna yi dañu leen di confiner ci ay traitement euh, sujet société ay sujet soft te nag li ci ëpp mooy amuñu ay moyens pour dagg yooyu les chaînes kombaawam nag saay su ne mooy jigéen ñi buñ si harcelé kenn ci fa muy liggéeyee mu profité nag ci occasion bi di woo nag mbokk jigéenam yi wax leen itamit ni lu jëm ci wàllum digital warul nekk mbir mi nga xamante ni nii daf leen di yàkkal aujourd'hui il y a tey jii am na soxna yu bari yoo xam ne dañuy dugal seen loxo ci monde digital ngir créer ay médias en ligne waaye nag bëgg naa lancer appel sama sœur moo xam africaine wala sax sénégalaise ñu xam ne digital warul nekk arme bu lay yàq yow ci sa bopp ndax li ñu gis mooy ca ndorteel ba dañu ko doon utiliser ngir di gën a ñoŋal seen i yëngu-yëngu waaye léegi dañu koy def ngir régler ay compte ay femmes ñu ngi ciy génn tiit jaaxle ay famille di ci tas tey soxna yooye boo leen joxee kàddu duñu nangu wax ndax nag dañuy ragal ñu dal di leen di attaqué di leen wax lu ñaaw ci réseau sociaux yi ak ci espace public bi présentatrice su émission invité MNF nag di insister ni lu jëm ci mariage ak dundinu société bi warul yàkkal benn yoon jigéen ñi di liggéey loolee nag jàpp na dafa war a ànd jigéen ñi ñu war a investir ci métier journalisme waaye ci 8 mars bi nag ñuy seetlu ni lu jëm ci seen wàllum instance décisionnelle ci biir rédaction yi dafa des lool Maïmouna Ndour Faye nag ak sœur africaine yu Cameroun ak yu Tchad yi nga xamante ne ni ñoom la àndaloon ci émission bi bokk benn combat a samp seen ndënd bu baax ci biir espace médiatique bi ndaxte naanaka na kenn gënu leen yey ci mbir mi.